ma di ko topp moom ba yàlla def mu lijjanti ko ba mu lijjanti ko itam ba ñu war a tàmbali liggéey ba ba ñu war a tàmbali liggéey ba fekkuma ci Tuubaa moo tax ñoom yi ñuy wax mbir boo ko boo boo booy défendre nit boo bëggee défendre nit itam da ngay am information yu leer wala nga toppi waxi ka ngay waxal ba xam li mu wax lu mu doon ba ñu tàmbali liggéey suñ ba soro xam ma ñuy wax sax yàlla def na maa ko fay ba ci turu suñ bi maa ko wote maa ko fa yónnoon fekk ma fi Ndakaar la ma fekk Mansour wax ma ko ànd ak Moustapha Diakhaté mii tey moom la àndaloon fekk Cheikh Mahoud Mountakha nekk njariñ bañ dikkee siyaare sëñ bi yandu fa jóge fa ñëw te xeer kon loolu sikki sàkku ma ko amu ci lu may la may wax te bëggoon koo laaj weesu lu gàtt loon mooy quartier yi mu war a dem ci Touba ak yéen quartier la ak fi nga xam ne moo ko taxoon a jug muy jumaa ji li ko ndax bokk na ci mbir du leen ba ca des Eh, ñenn ñi tam dañ koo dégg ne dama ne dama koy woo téléphone duma jël demewut noonu mosuma ko woo mu ñàkk ma jël waaye daa nungutal leeral liggéey bi ci quartier yi mu jëm ak nam dem weesuwul loolu loolu la soxla woon xam la ci des ko xam néew na ci dëkk bi sànc yi ne jugewoo ci sama xalaat wala bu jugewoo ci sama xalaat tam eh, maa ko ànd ak ñoom te duma toog ci télé di ko ndax loolaa ma fi bàyyi du lu may ndamoo itam ndax liggéey Sëriñ Tuubaa loolu ma fi bàyyi kii ma fi tegit loo tax mu teg ma fa kon loolu du lu lu si ndamoo niw ca waaye amu ci kenn koo xam ne mas naa wax ne defal naa fi nit intervention ci entreprise buy liggéey ci biir Tuubaa mosuma ko def tam mën na ngeen topp yëpp ba mu jeex loolee itam la ma cay bañ mooy xam ne lu jëm si ci dëkk bi waroon naa ko mën a def de ndax sañ naa ko ndax ñi ngi koy defal taalibe Sëriñ Tuubaa lañ waaye bañ lu yàq seen digg waaye lu ko se lu ko gàllankoor moo ko def te fasuma ko yéen def la ma ci la ma ci xam mooy na liggéey bi tegu ci yoon. hôpital bi ñuy wax. ña koy liggéey xawma leen siñ bi xawma leen wala bu ñu leen xamee xam nga mosuñ fee ñëw leeral ñu ko. hôpital Modou Lo Fousseyni bi yàlla def na bu ngeen delloo sa CRD yi fàttali ngeen fa ma ko daa wax naa ko yoon bañ bañ koy tàmbali dem naa fa waaye xamatuma ci dara 30 mm-hmm. bi ñuy wax. 2013 laa ci la wax ak président ba moom ci boppam sax fu ma néew daana ma ci tooñ di wax ne pour tarantu suñ bos bi ngir xam itteel gi ma itteel ba ñuy tax xero dem naa boobaa léegi xamaatuma ci dara ba ñuy bi entreprise bi tàmbali liggéey bi vérifié wu ma sax fu ñu toll ñëwaatuñ ci man loolu du ma ko lijjanti kon ñoom buñ jaawale ay mbir yu bokkut wala ñu bëgg a défendre ba tax ñu bëgg yàq loo xam ne yàq xamul lu mu man loolu du sama cër jéem ma ko lijjanti loolu yëfi état la loolu mu ne dañu koy jéem a jàngal itam buñ ko gën a xam gënuñu ko xam ndax état buy def appel d'offre entreprise da ko gañe gañe ko loolu suñu yoon néew ci jéemuñu ci dugal sax ñoom xam nañ du suñu jëf waaye nag Touba lu ñu fi def bu doonu tëri itam wala ay làmp ba ci làmp yi ci mujj làmp yi ci mujj bañ bañ dikkee ci sëriñ bi sëriñ bi ci man mi leen boolaat maa ko ànd ak ñoom la ma ca war a xalaat ma boole Abdou Lahad Ka ñu dem.